ca kon ma lu rëy maa jara wéy maa jara tëggal maa jar sox yu tëgg waa Medina seen doom ngoog Moustapha ñaanaa ci géej ganna war ma yàq yo jóg way yu jóg la war ma yëg nii way yu jóg la la mu saajeen ma waa nga néew ba lay su saaku yu wëree yàq yo ma dem ba Joal waa ma taay seen way yu jóg la Mohamed Navidad. benn pa comme ni ngeen koy gisee noonu ci image yi génn na yore butéelam ma ngay ubbi am na sax lu mu jot a sotti ginnaaw saraxu mbiskit bi nga xam ne jox nañ ko léegi xale yi mi ngi noonu taxaw Amet jël ko mu ngi sol xaftaanam daal am na la muy wax nag mënuñu koo xam waaye daal mi ngi léemu xam nañu ne papa saw léegi mu daal di génn ndaxte papaam boobu ba léegi mi ngi ci biir ak ñenn ñoo xam ne ñoo bokk ci staff bi ñi mu àndal nag ñu ngi ci biti lu ne ngi jóge ci biir kër gi di dugg gis ngañ ko am na yoo xam ne sànni nañ ko ay naq la sànni na ñaar sànni ci côté bi euh, sànniwaat daal di euh, duggaat ci biir euh, paa bi gënu ma ba tey mi ngi taxaw waaye daal gis nañ ko beneen lekkati daal di génn ci biir kër gi li génn ci kër gi nag dugg ci oto bi moom Euh, ba ñu ko doon pesé xam nañ ne dina nekk lu diis a diis muy ay galaaj yoo xam ne dafa ànd ak li nga xam ne euh, moom mooy rek euh, mbër ak kuy bëre loolu daal moo ne file gis nañ ko nag Pape moom fa mu taxawoon ba tey rek ma nga fa taxaw ñi ngi xaarandi ki nga xam ne mooy Papa Sow génn ngir dugg ci oto bi dem rek ci arène national combat bi nga xam ne moo dox ci digganteem ak Siteu bu jàmm gën gis nañu ko waaje it téye na leket di saraxe ndaak ñoom tey dem jàkkaarloo ak Siteu bu Diamaguène foofule ci arène nationale sant yàlla bu baax. naka nga tudd. man Babacar. alors ñu fekk la fii kër Papa Sow te ni ngeen préparé combat bi. ndam rek. Papa Sow jël ndam rek daal du ma cité daan ko jël jël bu leer la koy daan jël bu leer la daan jël bu leer incha allah. Papa toog lu yàgg bëriwul est ce que yaakaar nga leer man maa la ko wax. foo ko teg. jël bu leer la koy daan. ak ci dara du ma daan préparé ngeen physiquement mystiquement. incha allah stade lañ jëm nii barke ndam rek lañ bëgg ndam incha allah. fi yàgg incha ñett ñett dañ diir ay temps daal sant daal. ñu koy daanee. jël bi si jël leer la daan jël leer kay. ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay ziar bu baax. noo tudd. Blende laa tudd ah. bu fekkee la kër Papa Sow noo leen di waajalee combat bi. waaw li ñu koy waajalee comme Papa nu mu la waajalee rek. te bii nag moo si raw parce que ñun ñii ñëpp ay ndaw yi dem lañ te dañoo nekk si ginnaaw Papa Sow di koy ñaanal ndam pour yàlla may ñu ndam si kaw si te quoi loolu rek moo ñu tax a jóg. toog diir bu yàgg li nga xam ne bëriwul ñu ko yaakaare papa moom kenn du ko wax lamb ndax ancien la te ku xool xam ne papa sax bëri rek mu ngeeg moom xeex mu ngeeg moom dañuy ñaan yàlla rek yàlla defal ko ndam quoi si kattanu yàlla. dafa ragale booy bi xel. non loolu papa papa ñu mu bëree ñoo gën a garaaw booy bi amul danger dañuy ñaanal yàlla rek papa yàlla may ko ndam waaw looloo jar a ñaan quoi si kattanu yàlla incha allah. lamb rek moo ñu boole nii ak ay mais papa saw. Papa Sow amatul lu muy ragal si làmb wala ku mi ngi bëre. chaque jour mi ngi bëre si ah, géej gi chaque jour ñu ngi wax ak fecc. fecc mi rek turkindaa bi am dara tey xaar tey parcelle dañoo aayal tey dañoo moom tey dañuy daan foofu Siteu jël bu demul benn frontière maanaam roi des arènes day xaar Papa Sow maanaam xoolal tey confirmé te loolu yi ñaan yàlla ñun ñëpp waa parcelle moo soo gisee sax mobilisation bi nii non ba 26 mooy lu Modou Lo di wax maanaam Modou Lo Papa Sow léegi ay gaan lañ nice. jàmm am na daal. jàmm lu ñuy ñaan mooy. ana Modou Lo Modou maanaam léegi mu ñëw pour mu leer yaay booy Modou mo mooy yóbbu Papa Esat ak jox ay conseils yoo xamante ni lu ma lay wax ni di nga ne ma ki ma doon waxal jinne la. noo tudd. man maanaam ëmb lañ ma woowee mais. ëmb jine daal. waaw ëmb jine mais Modou Lo xam sama gaañ la sama partenaire la man dama ko li mu li mu yor ni dama ko ko yéene na xamul tax parcelle moo bari inte humaniser benn nit jiite xam ne loolu yombul maanaam yow mi may teelu sax yaa ngi bàyyi xel mais xoolal li ma lay wax xoolal barke Serigne Bamba soo toogee di nga xam ni Papa saw mi. maa ngi lay nuyu soxna si waaw ginnaaw ba ma sante yàlla euh, julli si yonent bi gërëm sama ñaari waajur sant Serigne Touba bu waaw man la Ousseynou numéro 2 maa ngi leen dalal jàmm fii unité 19. lu ngeen préparé Papa Sow ak Siteu. ko daj ci benn combat waaw dañ si ko soos euh, la demee waaw macha allah parce que saa ñu ko préparé rek affaire bi yàquwaat ñu ñu reporté ko mais toujours rek da si nekk au rek toujours day nekk au top daanaka moom ci ñooxoon combat tamit des na juróomi at tamit moom pare na parce que nit moom entraînement day nekk ci yow te moom daa bëgg sport vraiment yàlla ko yàlla fay coono mu daj dal tey noo ko gisee dina yàgg wala du ak nan lañ naka amee combat bi waaw góomu mu lool waaw mën naa gaaw mën noo bañ a weesu cinq minutes de waaw parce que fu mu nekk moom dinañ ko fekk incha allah papa dafa xaw ragal booy bi daf ko jiitu xale la nekk ci yoon waaye Papa nag day nekk mbër moo xam ne jàmbaar la ba pare deuxième turam entraînement la tudd am na fulla am na fayda vraiment ndam daal yàlla na sëdd lool ci barki sëñ Tuubaa Mbàkke lakk sa jërëjëf soxna si nuyu nañ la waaw maa ngi lay fay man maa ngi tudd Rama Diop fekk la fii Parcelles Unité 19 Papa Sow di bare yéen a dëkk waaw ñu dëkk ak Papa Sow sama balcon balcon ma jàkkaarloo Papa nekk ku baax depuis muy mbappat ba tey ñu ngi ànd ak moom di ko ñaanal yàlla may ko ndam ci barke Seydina Mouhamed mu am yaay ju baax ñu koy waxtaan Yacine di ko waxtaan Ami Darame di ko wax suñu papa Père Ba papa Sow ndam rek lañ koy ñaanal ca kaw ba ca kanam rek yokk ba yëg ko ci barke Seydina Mouhamed yàlla na ko yàlla may ndam lu sedd guy ma bokk ak jabaram nag ñu dëkk xombal loolu defe naa dara mënu koo dindi yal na ko yàlla defal jàmm yàlla may ko ndam ba ni ñu say ñu koy bëggee chaque jour ci barke waaw combat dañ ko yàgg a préparé ànd ak suñu mbër rek lu mu bëgg ñu bëgg ko lu ñu bañ mu bañ ko lépp na sedd ni ndox rek jàmm rek lañu woote ak am ndam andi ko parcelle parce Papa Sow doo waxee ci moom rek da sonn papa tout pere. ngi njaan lamb saajina lamb saajina lamba yaa ngi njaan lamb saajina bu lamb saajee internet de Cambus TV eh, nuyuwaat leen bu baax a baax ñu ànd ak yéen ñi nga xam ne nag ñu ngi en direct Euh, foofule ca kër euh, Siteu ca jàmm gën ñu ànd ci ak yéen ñu nekk file unité 19 kër Papa Sow bi nga dox seen diggante ñoom ñaar tey jii foofu ci arène national euh, di fàttali nag ne Papa moom toog na lu mat diir gu gudd goo xam ne deful combat bu ñu sax amee écrit bu bees bi nga xam ne tey jii gis nañu nag ci bannière boobu sax lay demee ngir rek jàkkaarloo ak ki nga xam ne moom mooy Siteu ambiance nag file ci parcelle di wax ne rek nag ginnaaw combat bi nga xam ne doxoon na digganteem ak Baye Mandione boobu léegi sax boobu sax fekkoon na it ci noonu ñu dàqoon ko fi nga xam ne moom mooy écurie bu Fass mu daal di am écurie bu bees boo xam ne moom la ñu duppee Jàmbaar Wrestling Academy di académie des jàmbaar tey jii ci dimanche. ñu defoon ko ci dimanche 2 février atum 2020 fii la woon sax ci euh, unité 19 euh, Papa Sow nag am carrière boo xam ne am na ci 32 euh, victoires. 32 combats yoo xam ne nag 23 victoire la ci am 8 défaites ak benn nuyu ñu koy sax tëkkale ak Balla Gaye Gaye Balla Gaye mi nga xam ne amoon 21 victoire Papa Sow xam nañ ne nag ku am équilibre la waaye itam euh, ki muy dajeel xam nañ ko ci mën a bëre muy rek euh, Siteu mi nga xam ne moom moo nekk foofule te ñuy wax nag te euh, léegi moom Siteu wax dëgg yàlla xaw naa màgg foot de jeunesse bi nga xam ne amoon na ko sax. muccee na koo bàyyi waaye tam papa nekk koo xam ne it yàgg na lool ci euh, làmb ji nga xam ne nag euh, mi ngi ci ndax xamoon nañu ko foofu la euh, ca écurie Fass comme ni ngeen ko gisee ci ambiance bi ña ngay waajal dem nag ca nga xam ne mooy ca arène nationale ngir amoon fi rek bëre ay mbokkam jege ñaaleem ni mu dëkkal ak ñi nga xam ne ñoom la nekkal file ñoom ñëpp ñëw jàppale ko ci bés bi nga xam ne dañ naan mbër bu ne euh, sa bés nga am muy sa bésu combat tey jiile euh, lay daje ak Siteu ca arène nationale Siteu it ca wàll ba mu ne euh, ma ngay parek ñoo ñam gis nañu ko ci oto boobule la ñu ci sotti laam déet waaye lu ci mënti am weex na tàll gis nañu léegi soxna su génn ñu naan yaayam la muy pare ki nga xam ne nag moom mooy doomam ngir jàppale ko waa këram nag gis nañu sànq ñi nga xam ne jël nañ leen yëpp wax nañu ne tey jile kii nga xam ne mooy seen mbër di Papa Sow dina andi ndam fii uh, di parcelle ñu ngi koy xaar ñeneen ñi tamit nee nañu seen mbër di Siteu uh, dina andi ndam ak lu ci ti am daal ay simili wala sax ay waxtu rek moo des ñaari mbër daal di jàkkaarloo fee nga xam ne uh, moom mooy arène national